jërë ngeen jëf dellusiwaat nañ ci plateau bi nag pour euh, dernière partie bi nag xam ngeen waxtu wi nag day fekk euh, résultat yi commencé daanu gannaaw ba ñuy observé benn break bu ndaw ndax baax na ci nag euh, décompressé tuuti ndaxte ci suba ba léegi ñu ngi woon fii ak yéen ci ci plateau bi di wax nag déroulement yéen nu mu déroulé maanaam participation bi dafa faible taux de participation ñu bëri bokkuñu benn benn ñoo ñëw fu mu toll ñu ngi laam-laam sax ne est-ce que dinañ mun a atteindre taux participation bi nga xamante ne nag euh, amoon nañ ko en 2007 te selon les chiffres officiels yu Makumba Kumbe joxe fii sànq muy directeur de la communication au niveau du ministère des élections léegi amatul sax direction générale des élections la ñuy wax léegi euh, mu di 34 virgule 5 pour cent léegi nag ñu ngi laam-laamee ne est-ce que sax dinañ yegg fanweer ndax sànq bu mu ñuy woo mu ne xibaar bi bu jotoon ci benn heure ci bëccëg bi daal ñu ngi doon laal booru 20 pour cent maanaam téeméer boo jël ñaar fukk rek ñoom ñëw wote si di taux de wala boog Euh, participation boo xam ne euh, faible na lool néew na lool donc gannaaw ba ñu noppaloo tuuti nag euh, def benn break bàyyi yéen téléspectateurs yi ngeen décompressé tuuti ñuy jot jotee naan seen ataay ñuy jot fee reer ainsi de suite dégluwaat nañ nag ci plateau bi ak ak invité ah mais ak invité dañuy fas yéene commenter li nga xamante ne moo di le déroulement du scrutin bokk yaakaar dina fi teew bokk gis-gis dina fi teew it neneen dinañ yónnee ñeneen it neneen dinañ yónnee au fur et à mesure euh, l'antenne est ouverte euh, ku mën rek yónni coalition yi amul benn problème bu ngeen ñëwee dinañ leen jël euh, ñu waxtaan ak yéen échanger ak yéen ci li nga xamante ne moo di déroulement scrutin bi waaye nag daal première tendance yi wala boog yenn résultat bip de résultats yi ñu jotagum am na daal ñu nga xamante ne ñu ngi ciy commencé di génn je garde le suspense encore pendant quelque temps juste le temps de vous présenter quand même les invités qui sont sur le plateau mu di Aly Khoudia Diaw di sociologue euh, moom dina baax mu jàngatal ñu tuuti rek euh, lan moo war a nekk ci ci bopp askan wi ba tax ñëwuñu parce que ñeen ñu ngi naan vraiment euh, député yi daal da ngay waaru ndax ñoom seen bopp lañ fi nekkal moo tax man duma fi sonn di perte temps di sonal sama bopp ci naaj bu tàng bi naan damay rang dem woteel ñoo xamante ne seen bopp lañ fi nekkal ak lu ci munti am ñi nga xamante ne ñooy politique yi dinañ ci tontu bokk gis-gis ñu ngi fi bokk yaakaar ñu ngi fi ku leen fi teewalugum di deuxième ci ñëw ci kanam tuuti euh, gannaaw euh, ba ma leen nuyoo yéen mbokku téléspectateurs yi nuyu sama mbokku invité yi laata ma ñëw ci yéen dañuy dem directement rek euh, Thiès ndax xam nga cees wala xam ngeen Thiès da di une localité boo xamante ne maanaam bërëb xam ne bërëb enjeu électoral la Thiès da di bërëb boo xam dafa am histoire politique euh, diñ ci dell siwaat nag waaye dañuy dem directement euh, ci suñu maanaam reporter wala boo correspondant bi nga xam ne moo ñu fa teewal mu di Gustave Emmanuel Faye laaj ko résultat yi nga xamante ne jot na fa jot na ko naka la tëddee Gustave ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay gërëm ba léegi yaa ngi ci terrain bi résultat yi nga jot. est-ce que mën nga ñu ko baax baaxi ko téléspectateurs yi. waaw ñu ngi gërëm euh, téléspectateur 2STV ak invité yëpp ñu ngi leen sant bu baax baax bi leen xamal ne bureau de vote bi ñuy wax euh, Iba Katiba. waaw di bureau test di bureau boo xam ne bureau témoin la euh, ci bureau numéro 4. ci maanaam inscrit 847 la votant 158 nul benn rek la suffrage exprimé 800 157 reste les verts 1 la ñu am démocratie citoyenne 0. Euh, petaaw euh, euh, askan wi ñaar lañu am PVD Kara Mbacké ñett la ñu am MPS Faxas huit la ñu am synergie démocratie amuñu dara parti socialiste authentique benn la ñu am MRDS vingt la ñu am coalition salaam ñaar la ñu am AD Penco juróom-benn la ñu am URD Euh, benn la ñu am SAP 21 benn lañu ñu am euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ànd jëf PADS bu Decroix benn la ñu am. Euh, léegi léegi Gustave. waaw Gustave xam nga 24 coalition liste ak parti dafa bëri. waaw buñ ko naree énuméré noonu dafay xaw doy waar léegi dañu bëggoon nga wax pour mu gën a gaaw ak yeneen correspondant yi ñu war a jël yëpp. ak mm. képp ku nekk ci terrain bi. maanaam nga wax ñu kan moo jiitagum ak kan ci topp ak ku ci toppaat ñi nga xamante ne amuñ dara jarul sax ñu leen di lim ñu jàll. waaw d'accord kon euh, li ñu jàpp daal ci bureau numéro 4 bu Iba Katiba mën nañ ne ñi nga xam ne ñooy euh, coalition benn bokk yaakaar ñoom ñoo jiitu am euh, juróom benn fukk juróom-ñaar fukk ak benn. mooy ñaata ñu si topp ñu si topp juróom-ñaar fukk ak benn 71 mooy bés du ñàkk am ñaar fukk ak benn ñi si toppaat moom mooy MRDCS di ñaar fukk ak ñett ñooñu daal mooy ñett ñi nga xam ne ñoom ñoo raw si bureau bi nga xam ne mooy bureau numéro 4. bureau bi nga xam ne mooy bureau numéro 6 inscrit 255 votant 99 suffrage exprimé 99 euh, ki nga xam ne moom moo jiitu mooy benn bokk yaakaar ñoom euh, ñoom foofu am nañu fa euh, daanaka li nga xam ne moom mooy 99 ñi si topp moom mooy bés du ñàkk am nañ fa juróom am nañ fa juróom MR MRSDS ñoom si topp am fukk ak juróom-ñett. dañu si topp moom mooy bés du ñàkk am juróom-ñenent euh, ki nga xam ne moom moo jël quatrième position mooy PVD bu Karambake euh, li nga xam ne moom mooy euh, bureau bi nga xam ne mooy bureau numéro 3 800 inscrits 848 votants 171 suffrage exprimé 171 bés du ñàkk am nañu Benno Bokk Yaakaar am nañu juróom-ñett fukk ak juróom juróom-ñett fukk ak juróom-ñett muy. 80 Gustave mën nga ko en français ah. waaw bés bu ñàkk 17 ñi nga xam ne mooy eh, MRDS am na ñaar fukk PVD eh, PD eh, PDS am nañ foofu 11 fukk ak benn fii bureau bi nga xam ne mooy bureau numéro 8 bu Croix-Rouge sénégalaise aussi bureau témoin la sur quatre sur 440 inscrits votants 174 suffrage exprimé bulletin nul benn suffrage exprimé 173 benn bokk yaakaar am nañ 93 ñoom ñoo fa jiitu. ensuite euh, topp si ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa benn euh, bokk gis-gis autant pour moi ñi nga xam ne ñoom ñooy bés du ñàkk ñoom ñoo si topp am 17 ensuite ñi nga xam ne ñoo si toppaat moom mooy waa MRDS am 16. bu ñu demee ci Croix-Rouge sénégalaise ba des boobu foofu léegi bureau numéro 1 ba léegi suffrage exprimé votant ba léegi 160 149. Euh, suffrage exprimé 149 inscrit 440 euh, ba léegi benn bokk yaakaar moom moo jiitu am 90 euh, ki ci topp moom mooy mm, ñi nga xam ne ñoom ñooy bës du ñàkk am fukk ak juróom muy 15 ñi nga xam ne ñoo si topp di MRDS am fukk ak benn bu ñu demee ci bureau numéro 2 votant 179. nul benn exprimé 178 suffrage exprimé 440 benn bokk yaakaar am na téeméer maanaam 100 euh, topp si ñi nga xam ne mooy MRDS muy 19 bés du ñàkk am na ñu fukk ak juróom-ñett maanaam 18 topp si PDS parti démocratique sénégalais euh, juróom-ñaar euh, bu ñu demee fi nga xam ne moom mooy bureau numéro 7 fi nga xam ne mooy El Hadj Malick Kayre Diaw fi nga xam ne moom la Idrissa Seck voté foofu bu ñu seetloo. Euh, sur le euh, numéro 7 bureau numéro 7 votant 237 suffrage 234 suffrage exprimé 234 benn bokk yaakaar am na 117 ñi nga xam ne ñoom ñoo si topp moom mooy euh, bés du ñàkk am nañu 19 maanaam fukk ak ñett ensuite topp si autant pour moi MRDS ñoom ñoo jiitu ak 21 PDS am 20 bés du ñàkk am 19. bu ñu demee si bureau bi nga xam mooy bureau numéro 6 ba léegi si élage euh, école élage Marie Carré Diaw euh, bureau témoin la aussi 200 votants 234 nul 0 suffrage exprimé 234 benn bokk yaakaar 109 ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais am nañ 18 bés du ñàkk am nañ 28 euh, MRDS am nañ 24 ak ñi nga xam ne ñoom ñooy faxas. am na ñu euh, vingt 22 kon euh, ñi nga xam ne parti démocratique sénégalais ñoom ñoo si topp am 19 bureau numéro 7 votant 227 suffrage exprimé 227 benn bokk yaakaar 109 ñi nga xam ne ñoo si topp moom mooy PVD euh, bés du ñàkk 23 PVD 17 faxas 16 PDS am nañu foofu 28 bureau numéro 2 suffrage exprimé 225 votant cinq benn bokk yaakaar 130. Benno euh, Gis-Gis 11 MSRDS am nañu 18 Bës du Ñakk am nañ 31 Faxas 28 PDS 16 bureau numéro 1 200 votant 234 nul 2 suffrage exprimé kon mu ngi lay jox 228 Benno Bokk Yaakaar 117 Bës du Ñakk 18 PDS 18 MRDS 13. ñooñu euh, ñoo na ñoo jël raw gàddu foofu bureau numéro 4 votant 228 suffrage estimé 228 bés euh, euh, benn bopp yaakaar 113 bés du ñàkk 27 MRDS 16 PDS 16 Faxas 15. voilà voilà merci merci Gustave euh, damay wax juste rek au niveau de pour que ñu waxaale les les les reporters qui sont sur le terrain pour permettre téléspectateurs yi ñu gën a mën a comprendre parce que déjà vingt quatre listes ak coalition si c'est beaucoup euh, bu ñu naree énumérer bi énumérer bi dafay jaxase euh, mbokku téléspectateurs yi alors ma bëggoon juste rek euh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di reporter yi nekk ci terrain bi ñu maanaam ñuy xool ñu ñuy jox résultat yi par centre de vote maanaam résultat yu ñu am ñu dajale ko na centre bi temps la ñu am diw moo jiitu diw moo stop diw moo stop comme ça ñu yàgg ci antenne bi ñu évacuer ko président suñu mbokk yi nekk ci réalisation bi euh, bu ñu mënee jàppale ci loolu juste avant ñoo jox un reporter euh, ci biir en direct comme ça pour mbokk téléspectateurs yi gën a mën a comprendre comment s'effectue donc le, le calcul alors dañuy dem directement ak suñu mbokk invité yi le temps de retrouver quelqu'un d'autre mu di euh, Aliou Khoudia Diaw lay tàmbale Aliou maa ngi lay nuyu maa ngi aussi Cheikh Gueye nga xam ne moom mooy premier adjoint au maire de Dakar bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay nuyu monsieur tey élection bi gis nga nu mu tëddee yow ban jàngat ngay def ci loolu. waaw jàngat biñ ci def en premier lieu mooy que mooy lu ñëpp constaté ah les premières heures de la matinée c'est que participation sénégalais yi vraiment. Euh, demeewul noonu demeewul ni ñu ko doon yaakaare par rapport ak présidentielle bi weesu donc taux bi faible na. mais yooyu c' était prévisible quand même parce que même boo xoolee dans la campagne on n'a pas senti engouement bi amoon ci présidentielle. mais yaakaaruñu woon ne vraiment euh, taux bu am tey dina am nii. voilà donc parce que euh, gisee leaders yi bokk ci campagne bi. Oh, waaw leaders ci présidentielle bi te ils se ci campagne bi doy waaw de en réalité ñiy suivre actualité politique bi gisoon nañ ne campagne bi c' était pas aussi mouvementé que ça. donc certains aussi avaient cru avaient avaient avaient ne boo sàgganul bu continuer nii parce que campagne bi suscité wul benn passion suscité wul benn engouement. donc moo tax tey taux bi mel nii en tout cas ñun bettuñu quoi on s'attendait à peu près à ça surtout que aussi y a des antécédents donc boo xoolee Sénégal franchement bu ñu waxee dëgg depuis le juin Sénégal ñi ngi ci en période de pré-campagne et de campagne depuis le 23 juin mmh. et le juin ne renvoie pas à une bonne image du député sénégalais mmh. bu ñu waxee dëgg ah sincèrement parce que jour boobu les députés ont voulu faire des choses yoo xam ne peut-être le peuple n'était pas d'accord mu occasionné wu le mental sénégalais euh, Euh, perception boobu lañ am ci député ça pourrait expliquer l'une des causes l'une des causes parmi tant d'autres yi nga xam ne moo tax ne tey les sénégalais ne sont pas allés massivement dans les urnes d'accord mais je pense que tout ça aussi question de perception